suñu invité de la rédaction euh, Sadia la Aïssata Dia ñu gën ko xam ci Sadia turu artiste am moom invité moom nag euh, chanteuse la di auteur compositrice parce que passionnée waxtaan ak moom ci wàllum euh, musique ci wàllum carrière am wante itam li nga xam ne moom mooy ay projet am balaa may sori rek ah ma bàyyi ko kaddu gi mun nañu teg ñi nga xam ne kon ñooy sénégalais. salaam Ndofène maa di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan à travers seen info kontaan trop ci teew fii wax euh, Sadia actualité yi. Mm-hmm. Mm-hmm. balaa may rek Sadia xanaa dama laaj tey kan mooy Sadia peut-être am ñoo xam fois. Mm-hmm. ñu lay ñu lay découvrir maanaam xamaguñ la ana kan mooy Aïssata Dia Sadia. waaw euh, Aïssata Dia compositrice interprète. di yëngu ci wàllu musique euh, nekk sénégalaise yor sama groupe di góorgóorlu ndànk-ndànk mhm. euh, moom moo jaar-jaaru Sodia tey naka la ana ah, tey fan nga jaar musique noo ko jànge loo doon la wala loo jàng la wala waaw waaw la dama ko jàng bëgg-bëgg passion dem jàng ko gëstu aussi di làmbaatu dugg fu ne pour euh, mën a am expérience aussi loolu moo ñu forger ba léegi jàng école laa jaar jaar école ta Seck foofu laa jàngi musique ma fa génnee nag euh, ba am sama diplôme de chant ci laa continuer aussi di def variété mhm. ma defee après am sama groupe muy weli band di ci ci yëngu mhm. euh, boobu ak léegi tey expérience bi nga xam ne am nga ko ci ci ci musique boo ñu si dikkalaatee bu fekkee niveau national niveau international relation yi waaw relation yi expérience bi comme ni ñuy wax rek liggéey la plus ñuy dem plus ñuy gën a am opportunité ak aussi chance pour mën a percer ci côté bi ñuy yëngu euh, au niveau international ak national yëpp ñu ngi ñu ngi lépp ñu mën donc euh, yàlla mu ngi dimbali. Mm-hmm. non gis peut être ci li nga xam ne moo mujj ki say euh, wala mun naa ne mooy sa production bi mujj muy Tengadé. Tengadé. saa yaakaar naa mu ngi mu ngi def bës <laughs> <laughs> li nga ne mooy réseaux sociaux yooyu ana ban inspiration la inspiré ba nga ba nga ba nga amal euh, son boobu noonu. waaw Tengadé instant moo nekk sur le marché Tengadé ñëw pour euh, bégal sama mbokk xalpulaar yi ma yàgg di wax di ko incarné muy euh, particularité particularité ak originalité ci côté style ak style de musique style vestimentaire. donc euh, Sodia indil leen tengaade ko woy xam pulaar aussi aussi sa mbokk pulaar yi ñoom ñu mun di gis seen bopp tengaade ko mu ma nekk di daw donc beneen expérience bi boo xam ne bëggoon naa ko génne mu indi beneen particularité ci Sodia loo xam ne xamuñu ko woon ci man ma indi leen ndax dafa am message boo koy véhiculer parce que ma juumul ci kii la ci sa làkk nga ko wéyee te ndax dafa message boo xam ne danga koy danga koy véhiculer à travers waa tengaat liñ ciy wax chapeau bi ñuy bi ñuy euh, bu fell di tàmm di di sol moom laay woy di wax njëriñam di wax aussi jeunes ñu dellu aussi ci suñu cosaan parce que dafa am solo di ko wax aussi ci en pulaar di wax tengaade ko eneen fulbe ko mineen jey tengaade ñun pël ñoo mom tengaade parce que pël yi dañ ko tàmm sol ci sàmm yi ñii di ko sol aussi pour dem ci tool Mm-hmm. bi ma ñëwee nag pour ñëw bëgg a bëgg a bégal sama mbokk xaalpulaar ma ne pourquoi lan laa leen mën a bégale lan aussi laa mën a def loo xam ne kenn defu ko ma ñëw indi tengaade tengaade bi ma ñëwee nag ci laa développé wax njëriñu tengaade wax lan mooy ci aada ak cosaan ci côté pël mm-hmm. loolu laa indi ci tengaade dëgg la mm. euh, bu ñaatee nag ci répertoire Sadia tey ndax Sadia génn album ñaata son la def am ngi liggéey si album sa répertoire waaw album bi nag euh, déjà dañuy composé mhm. donc composition yi ñu am rek mat na ay album yu bëri mais comme li may wax rek musique kenn du ko yàkkamti ok euh, man dama nekk ni koo xam ne damay def ndànk ndànk ko am ñoo bëgg parce que lu ci ëpp say xalaat lay nekk wala lu ci ëpp boo ci jiituwul après day compliqué mais comme Sadia dafa nekk koo xamante ni moom mooy produire boppam du ma ñëw rek sa song album may def ndànk ndànk mais aussi lépp lu may def rek lu may bëgg bu koy def mu doon liggéey bu baax liggéey bu set boo xamante ni fépp fu mu génn ñëpp dinañ respecté li may def te dinañ xam ne lii liggéey bu baax moo ko lal hmm. donc ñu ngi ci liggéey album aussi bu jotee rek après dañ ko génnee mais single yaa ngi fi presque def nañ set single je pense hmm. donc mu ngi ci lancé boobu ba léegi lay lay des sax euh, Sadia macha allah gis nañ ne mën na woy polyvalente la hmm. mais tey dafa dafa mel ni peut-être Sadia munoon na gën a siiwee comme ni mu siiwee wala loolu la nga yaakaar moo peut-être bu fekkee am na moo waral bloc benn blocage. waaw xëy na li bës bi ñenn ñi di war laa am moom laa dul def loolu rek la. mais li may def xëy na ak fi may teg sama tànk jamono bi ci festival yi may dem ak fi ñu may yóbbu je pense que liggéey bu baax moom moo koy def. te aussi bu fekkee da nga tàmm pour def liggéey bu baax je pense que côté bës doo ci dugg. wala aussi bu nekkul say style du ci loolu ngay jëm parce que liggéey bi dafa laaj loo xamante ne concentration la laaj ak patience ak aussi tëju liggéey hmm. donc man loolu laa xam xëy na du ma ne Chadia kenn xamu ko ñi ma xam bëri nañ parce que foo ne Chadia bu ma taxee dina xam kii ma kan xëy na peut-être nit ki lañ dul xam mais hmm. bu ma wooyee wala ñu gis daan nañ gis samay vidéo wala ñeneen ñi naan la non gis naa lii wala lale mais yàkkamtiwuma lool parce que maa ngi ci yoon de te moo gën man nii la baaxee sax buy ñëw rek day day continuer lu mm. ko ko sànq euh, style. est ce que nekkul euh, sa façon style parce que euh, nekkoo ci mbalax pure diir dur bi comme peut ko tàmmee si ñeneen est ce que nekkul yenn saa tam sa style mooy mooy xaw a indi blocage. waaw ne xam nga ma du ma juddoo Sénégal ne du def mbalax loolu mais Sadia variété la jàng kuy ne variété amoo frontière ci musique. man lépp laay def bu jotee ma génnee son boo xamante ne dama ciy def mbalax dama koy def. parce que génne naa ko bu ne acoustique laa njëkkee. Mm-hmm. ñëw ci afrobeat tey maa ngi ci lan yelaa dama koy def maa ngi ci côté bépp. Mm-hmm. am naa chanson yoo xam ne en blues la xam nga bu jot jazz jotee ñu jazz ko bu fekkente ne mbalax la ñu mbalax ko parce que variété bi chance boobu laa am am naa opportunité def lépp lu ma bëgg def aw ma benn frontière. mais bu jotee rek dinañ ko def incha allah. Mm-hmm. te yan la mooy relation Sadia ak yeneen misi yeneen musiciens yu Sénégal yi ne yéen a bokk milieu bi relation yi. waaw jàmm ak respect jàmm salaam loolu rek li sekk ñu man moom d'habitude bëriwuma ay dugg-dugg mais ñëpp jàmm jàmm laa sekk ak ñëpp. te moom lañ sekk ak man aussi. Uh-huh. Uh, peut-être dama si jël peut-être benn particularité euh, Wally Seck. dañoo gis en deux mille dix neuf mu amoon lu mu la promettre publiquement quoi mu ne woon dina la jàppale c'est pas pour nga produire ay son mu fekk yu demee noonu ndax tenir na promesse boobu ak it seen relation nu mu demee. waaw xam nga yenn saa yi moom nit di nga bëgg am yéene def dara xëy na peut-être doo am temps bi. wala doo am chance bi aussi pour def ko. mais li ñuy wax rek comme gis nañu moom waxtaan nañ ci yu bëri donte ne bés mun na ñëw mu dox. mais li may wax rek toujours man du ma xaar kenn parce que musique man maa opté def ko dama ciy góorgóorlu di dem plus may dem lu ñëw rek après damay jël parce que dama ubbeeku ak ñëpp. Mhm. mais di ko moom tamit yoonu jàmm parce que je pense que bu yéeneem la wax ku wax sa yéene moom. Ah, kon jàppale kon jàppale boobu amagul. non yéeg kiiwaguñ ci projeté guñ ci parce que gisante waatuñu. ok depuis la diggante bi donc mënu ma ci wax leneen loo xam ne kiiw. déggantewu leen tamit. no jàmm depuis décès. Euh, boppam Papa Thiam ci laa ko woo mais kii liggéey bi la daa jàpp rek. waaw depuis loolu leen waxtaanu leen si <laughs> la. liggéey bi yombul musique yëpp métti. Ah. Euh, ma nekkee pour la comprendre dëgg moom mooy mën a mën a kii ci loolu. dëgg la sinon day compliqué. Euh, na nga gisee musique musique Sénégal musique fii ci fii ci Sénégal ndax mu ngi dox. ah mu ngi dox comme ni ñi ko ñi ko bëgg a doxal si ni ko bëgg a doxalee. je pense que ku nekk ci li nga yëngu rek yaay jël sa responsabilité xool naka la la gënalee nga koy doxalee noonu mais ñu ci côté bi ñuy dem dëgg yàlla ñu ci am lu ñu bëgg mooy fës gi ak aussi liggéey lu baax fépp fu ñu dem ñu respecté ñu fépp fu ñu dem ñu yëkkati ñu donc je pense que kenn ku ne am nga ci wàll mais je pense que mu ngi dox ci li ma foog hmm. xanaa peut être rek fi may jeexalee dama laajte ana lan mooy tey projet Sadia projet ci musique bi. waaw projet ñu ngi ci déjà promotion wu Tengaare bi génn ñu ci jógee ñu ngi war a dem jógee nañ bëgg dem festival Sahel jógee Côte d'Ivoire pour benn festival aussi génération à foofu lañ jógee bëgg dem donc ñu ngi waajal aussi Dubaï pour benn prix bu ñu jox foofu mu prix meilleur groupe artistique pour la promotion du leadership féminin. donc Sadiaye la Wely Bank ñu ngi xaar loolu ñu ci jógee nekkaat ci projet rek ñu mm-hmm. yàlla jox après ñu jël incha allah. maman balaa ngay jeexal di ñu may benn affaire xanaa. ak guitare bi ñu tuuti waaw ak. Euh, <laughs> ay ca Dziećmi neex na <laughs> ñun tam nuyu nañ la <laughs> ñu lay fay nuyoo bi euh, lan ngay tëjee rek kon looy jeexale yan kàddu ci taxawaay bi kontaan aussi ci invitation comme toujours yow moom da nga yàgg jàpp ci liggéey bi moo tax ni ñuy def rek mooy ñëw def suñu wàll kontaan ci ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan à travers Sene Info di kontaan ci ñëpp merci beaucoup jaajëf euh, Sadia yaa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu tam kontaan nañu bu baax ci liñ la euh, gisaat mm. yàgg na gise wuñ sànq rek maa ngi lay wax ne di <laughs> <laughs> fàttaliku suñu entretien jamono yi may def stage euh, kontaan nañ bu baax a baax kon di la di jaajëfal itam mm. mbokk internet yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Sene Info di leen jox dig daje kon lu yàggul dara Thank thank you